société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di may seen de presse tali na jàmm ñu ànd xëy yér yéen ñu xëyando yéen kaay gi di réew mi ko de jen di ñu xibaar naan ñu lu jëm ci mbiri Barthélémy Dias ak mbiri Ndiaga Diouf ba njaw ma ngi wéy di dasu xambi na pënd bi wureeku la ndax moom Barthélémy Dias ginnaaw bi ñu ko njëkkee atte dañu ko tëjoon lu toll si ñaari ati kaso na juróom benn weer tëdd waaye nag Barthélémy tribunal dëggal na ne ñaari at yi nga xam ne moom la ñu waxoon ak juróom benn weer yi Barthélémy Dias war a moo tax nag avocat Barthélémy Dias ñoom nag nee nañu danañu dem fi nga xam ne mooy cour suprême maanaam cassation ngir nag kase verdict bi yéen a kaay gi ne nag moom Barthélémy Dias bu dee nag cour suprême maanaam dafa dëggal nga xam ne cour d'appel wax ko Barthélémy Dias mën naa ñàkk li nga xam ne mooy mandat député ma loolee nag kenn ci Ba moo a xamle ci journal bi nee nañu casséwul li nga xam ne mooy verdict bi moom Bart ministre de la justice mën naa bindi njiitul assemblée nationale ngir nag ñu dàqe Barthélémy Dias ci assemblée nationale yéene kaay gi di 24 heures ñu fekk fa doomu Sambol Dias bi moom Bart nee amul benn yoon boo ne dina ko jóge ci bu Ndakaaru wala mu jóge ko ci assemblée nationale ndax mbir du droit mbir mi mbirum la yéene kaay gi di Sud Quotidien ñu xëy fekk fa journaliste Daouda Mina na Barthélémy Dias moom la ñu woon Khalifa Ababacar Sall ak li ñu waxoon ci àtteb Khalifa bokkul ak li nga xam ne moom la ñu wax ci mbiri Barthélémy Dias ndax Barthélémy Dias toppewuñu ko lu jëm ci wàllum luubal alalu askan wi toppewuñ ko tamit lu jëm ci wàllum crime Barthélémy Dias la ñu koy toppee mooy gaañ nit mu jaaree fa ñàkk bakkanama ci loo xamante ni nekkutoon sa bëgg-bëgg maanaam nekkutoon sa intention loole la ñuy toppee Barthélémy Dias yéen kaay gi di critique ñu xëy fekk fa Seydi Gassama bu Amnesty International section Sénégal nee na mbiri Barthélémy Dias mi ak àtte bi doy na ndax ñi nga xam ne dañu leen a waroon a wëri daal leen di àtte comme ni ñu àtte Barthélemy Dias yéene kaay gi di Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fa Assane Samba mu xëy jël xalima ma nee na ay droit civique ma ñàkkul tamit ay droit civil ma maanaam mën naa fale mën nañu ko fala te nag kii nga xam ne mooy ministre de la justice jamono ji na ak situation bi fi mu toll maanaam jëru ko muy jéem a bind assemblée nationale ngir nag ñu fay dàqee Barthélemy Dias du contexte bii nga xam ne moom la ñu nekk ndax Sénégal toll na ci guddi yoo xam ne guddi yu yoo xam ne li ñëpp war a sàkko mooy apaisement dignité a liggéey rawatina dund gi nga xam ne cher na ba jéggi dayoo loolee la état bu Sénégal war a tàll waaye nag contexte bi nga xam ne doy na waar ba jéggi dayoo bu ñu fi nekkee naan dañuy bind assemblée nationale ngir dàqee fa Barthélémy Dias loolee rek musiba rek la mën a jural Sénégal yéene kaay gii di wal fajiri xëy di ñu xibaar naan ñu Macky Sall ginnaaw bi mu taxawalee gouvernement bi bëri na ne ñoo ne gisuñu ne dañoo am mbetteel yéene ne mooy njiitul président commission yi nee na nag téesante bi ci assemblée nationale mën nañu ko bàyyee maanaam téesante bi ak daggasante bi ak xuloo yi ak saaga yi ak defante bi loolee mën naa ñàkk kàddu yu Amadou Mame Diop la ni ki démb la ko xamle nee na téesante bi jëru ko na nañu diisoo nañu diisoo nañu waxtaana yéene kaay gi di enquête xëy duñu xibaar na ñu njiitu réew mi di président Macky Sall stratégie de communication bu nekk teg na ko fi waaye jàllu la nguur gi dañoo am jafe-jafe communication jafe-jafe communication maanaam Macky Sall andi na Latif Coulibaly dénk ko communication bi waaye mbir mi doxu Sall jëli na Souleymane Jules Diop dénk ko communication waaye mbir mi doxu la Macky Sall jëli woon na Abou Abel Thiam dénk ko communication bi waaye mbir mi doxutoona jëli na Mamadou Tounkara dénk ko communication bi waaye mbir mi doxutoona jëli na El Hadji Amidou Kassé dénk ko communication waaye mbir mi doxutoona jëli woon na Seydou Gueye dénk ko communication waaye mbir mi doxutoona jëli na woon Omar Gueye dénk ko communication waaye mbir mi doxutoona yéen kaay gi nee na ak lajji talañ si gis ba léegi Macky Sall ma ngi wër Macky sa cherche Macky sa cherche yéen kaay gi nee na jamono ji yoro ja la ñu andi maanaam ngir mu yor communication bi yéen kaay gi bi metti na ba maarade tali am na ñoo xam ne xëy ndékki añ ñi nga xam ne ñooy dem ci marché bi sonn nañ ba maarade tali lu ñu laal dafa yokk ba maarade yi sax dafa indi jafe-jafe ci biir kër yi ci biir kër yi ndax nag am na góor ñoo xam te ni ñoom xamu ñu xamuñu réalité bi maanaam xamuñu li nga xam ne moo xew ci marché bi moo tax na nag ñi nga xam ne ñooy soxna yi bu ñu demee ba ñëw léeg-léeg dañ leen di song dañ leen di song góor ñi dañuy song soxna yi ndax marché boo xam ne dafa cher ba maara di tale ma ne la tension familiale moo am ci biir kër yi moo tax na jamono jii góor ñi si boppam dañu leen a war a yóbbu ca marché ba ndax nag ñu xippi seeni bët xam li nga xam ne mooy réalité bi yéen kaay gi di Rewmi Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu tey ji la ñaar fukk ak benneelu gestion assises économiques annuelles yu MEDES tey jii ca King Fahd la nga xam ne mooy temba la ñuy waxtaane mooy résilience du tissu économique sénégalais yéen gi ne na yu bari ñu seen xam-xam màcc jëm ci wàllum kooma danañu ko fekkee rencontre bi li nga